septembre a ki ci guddi nag lañ fas yéene màggal guddik yonent bi alayhi salaatu wasalaam donte nag du Tiwaawan dong ndax bëri na ay bërëb yoo xam ne ñu waaj bu baax a baax gàmmu gi waaye fii nag moom bëri na ay taaliba yoo xam ne dañuy bawoo fu ne eh, ci Sénégal ngir ñëw fii ci dëkku Seydi Hadji Malick si bi amal seen ziyaara waaye itam daal di rek a eh, eh, gàmmu gile ndax solo suuri la ci ñoom solo suuri la ci képp koo xam ne rek ci tarixa cheikh bi nga bokk euh, ñu ngi fii nag image rek war na leen a woon fi nga xam ne fi la ñu nekk di zawiya Seydi Aboubacar Sy nekk rek xalifa gu njëkk bu Seydi Hadji Malick si euh, moom mi nga xam ne daal daanaka kenn dootu ko naatable euh, ci dayo bi nga xam ne am na ko ci lislaam waaye dayo bi nga xam ne am na ko ci xadara bi le ñu ngi fii tey ji nag jàpp leen ne bëri na ay taalibe yoo xam ne ñu ngi ci rang yi di rek bëgg ko ziyaare si dañuy dem rek ci ñoom daal di nag dékk suñu micro tataan seen i waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne rek ñu ngi koy ci gàmmu gi waaye tam li nga xam ne moo waral seen ziara topp ma ñu dem. maami Serigne Abdou nee na waqaala lam laaku rabbal xalqi say سيدنا يبقى نبيك معدودا من المسلمين man maa ngi jógee dakaar waaw ci waawoon waaw yaa ko fekkee gàmmu gi waaw ah, xanaa ñëw ziar si Serigne Babacar si xam nga tey rek dafa nekk bisu gàmm quoi ñëw jéem a ziar ñaan suñuy soxla yàlla mu nangul ñu ko si barke Serigne Babacar si soppe bi ñëw di ko siyaare rek di ñaan yàlla rek yàlla tar ñu si barkeem waaw. waaw li ma yëg bari trop trop trop parce que dama ko bëgg sama xol ba tuddee naa ko doom sama doom bi mu jaam moom laa ko tuddee sëñ Babacar Si waaw fi ma jaaram moom am ay jafe-jafe am ay métti métti tëdd guddi gannaaw yàlla ma diit ko lépp sotti si barke sëñ Babacar maa ngi bawoo ba Dakar mais maa ngi dëkk ba Saloum dëkk bu ñu naan Jamagaajo dama bëgg ba mënu ma wax parce que dama kontaan maa ngi jógee Dakar nii sama oto taximan la mais sama oto dama yoroo Dakar ba fii pour ñëw siyaare sëñ Babacar. maaleykum salaam soxna si waaye ñu ngi laa delloo siyaar baax maa ngi jógee Dakar benn barak ñu may wax bàcc osé mu Serigne Babacar si maa doyloo Bakary Darmar am loo kumba ci am Sidi Fagay dem ni Jawar borom bone bi. da leen di siyaare yéen waa 7TV di rafetlu seen liggéey bu baax macha allah waaw dañuy ñëw amal bi ran nag waaw pour gis sëñ bi xam nga rek euh, di féttaliwaat euh, sunu kóllëre ci sëñ bi di leen ñaanal yéen seen télé bi ci kaw ci kanam ci lu baax da leen di ñaanal bu baax yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko ñëpp ci barke sëñ Babacar 7TV maa ngi ànd sama xarit bi di lës borom Touba sama xarit. salaam soxna si maa ngi jógee de sa tool. ñëw fekkee ci gàmmu màggalu guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw nag bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant maam seex Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu wax dëgg yàlla am nañu mbégte trop balaa may wax dara du ñuy sant seen seen bi nga xam ne mooy 7TV duñ koy seetaan sere saatool bu baax a baax bég nañu loolu ci yéen ñu ngi ñaan li ngeen man ren bu ne yal na ngeen man lu ko raw te yéen ñi nga xam ne yéen a yor affaire yi na leen yàlla yokk ba ngeen yëkk maa ngi tuddee Assane Thioye ànd ak sama doom sëñ Babacar mi nga am ne sëñ Babacar bi laa ko dëppe leen jëf kontaan nañu lool yal na leen yàlla fay. jërëjëf Afe Jolof Afe Jolof Afe Jolof waaw. so waaw sëñ si rek ñaan aajo yi réew mi allah waaw waaw am na solo moom am na solo trop moo tax fu ñu mën di dem il faut ñu ñëw siyaare wax dëgg macha allah dugg fi moo xaw a jafe mais instant ku dugg euh, euh, li nga xam ne rek moo di waxtaan wi ak taalibe yi nga xam ne nii euh, bawoo nañ daanaka fu nekk ci Sénégal ñëw ci dëkk bu sell bi ngir ziyaare. kilifa dina yu mag yi nga xam ne ñoo fi tëdd di njabootu Seydi Hadji Malick Sy moo xam ci xabru bu ne waaye ñu ngi fii ci Zawiya Seydi Aboubacar bëri na ñoo nga xam ne rek ñëw nañ ziyaare ko amul mag amul ndaw amul jigéen amul meer ñëpp daanaka dañoo ñëw rek daal di koy ziyaare si dañuy rek taataan kaddu xale yi ndax xale itam euh, daanaka faaw rek ñu am seen seen kaddu. El waaw. waaw kay. mooy le marabout le plus éloquent le plus intelligent. jërëjëf mu nekk kàddu xale yi mu mel ni comme ni ko suñu papa euh, woyee woon rek di du kenn mbay nee na xale yi nga xam ne ñoo judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay rek la ñu xam koo ci waxal mun na mooy maamam dafa mel ni loolu la ñu gis nag tey jii ci Tiwaawoon ndax xale bi xamu ko fekkewul jamonoom te xool li mu wax ci moom. dañuy rek wëy ci li nga xam ne rek moo di fil bi daal di jël ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ziar ci Seydi Aboubacar Sy papa ñu ngi leen nuyu. man El Hadj Mokhtar maa ngi dëkk Dakar Dakar laa juddoo. tey nga ñëw ci gàmm bu ziar ci Seydi Aboubacar. waaw dama ñëwoon pour ziar Seydi Aboubacar Sy incha waaw ñëw ci gàmm vraiment muy lu nga xam ne mbekk la si ñun parce que ñun taaliba Cheikh ñun lii rek lañu ñu am màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Maodo moo suñu wasila nit ku nekk ku nekk ku dox ci kaw suuf war ngaa mën a màggal gudd sallallahu alayhi wa parce que moo ñuy tax a exister kon mbégte la ci ñun fierté la ci ñun. tàng na waaye jar na ko. jar na ko jar na lu ëpp loolu ku xamoon loolu dox Dakar ba Tivaouane jar na ko jar na waaw kon nag yàlla nañ yàlla nangu waaw yàlla nañ yàlla nangu waaw li ñu moom bibliothèque la waaw li ñu mën a wax ci moom bari na trop buñ fi taxawee di ko tamit duñ fi jóge yàlla nañ ko yàlla fayal waaw yàlla nañ ko yàlla fayal. jërëjëf xanaa dinañuy dem rek ci beneen wàll ga ndax bëri na ay ran ci biti ngir rek ñu mën a dugg si ci zawiya bi ziyaara waaye tam dañuy dem tataan ak kàddu jigéen yi itam ndax loole am na solo ñu rek xam bu baax a baax lan moo waral seen teewaay fi nga xam ne moo di zawiya Seydi Aboubacar Sy jaa ngeen jëf. maa ngi sant yàlla man jàmm gan. waaw ma ñëw ziyaara Sëriñ Babacar. gëm ko ci sama xol ñaan yàlla bu may sangu suuf. naa nekk taaliba Cheikh bu dëggu bu bëgg a Babacar si yàlla taas ñu ci barkeem yokk leeram moom ak képp ku meññ si alaaji Malick Sy ñu leen di ñaanal yàlla xalifa bi fi ne yàlla na gudd fan ànd ak wér moom ak ay rakkam ak lépp lu takk si moom mu mel ni rang bi xat na ngir ñu ngi buuxante ngir mën a dem ziyaara ji Seydi Aboubacar dañuy wéyal rek li nga xam ne moo di waxtaan wi ak gan yi nga xam ne ni ñu ngi ci rang bi ngay sant alhamdulilah. géejawaay. géejawaay nga ñëw ziar si waaw moom laa ñëw ziar si. macha allah xaa dugg génnaat. mu mel ni daal waxtaan wi nag xawul yomb ndax dañoo ne di buuxante ngir daw dugg ziar Seydi Aboubacar. waaw kay fay nañ la. man day faatu. mu mel ni danga ñëw tey ziar Seydi Aboubacar. ah kay incha allah. ma am solo la ci gàmmu. lu am solo gi macha allah. Seydi Aboubacar kenn du moom kenn du moom waaw. yaa ngi doon tudd. yaa ma Cissé laa tudd. nga ñëw tey ziar suñu Babacar. bu sëñ bu ne bu ne gaara bi. wallaay loolu si moom fi indi de moo tax may buugoon ni ci naaj bu tàng bi wallahi <laughs> mais ziar solo la. wallaay dëgg lu am solo la jógee dëkk ak dëkk rek. wër sëñ Mansour nee foo jëm ne ci waawoon looy wuti mu ne damay gàmmu ci xam nga ñuy gàmmu mu ne màggal juddug yonente bi sallallahu alayhi wa solo la loolu kese moo tey si dëkk bu sell bi wala jar na ko jërëjëf waaye. salaamaaleykum soxna si ak moo bàyyeekoo. kontaan ci lool kontaan rek xanaa. dañuy dañuy dem waxtaan ak ñi xam ne ñoo nekk ci fil bi. mag ak ndaw ñëpp a ngi ci biir ñu dégg waa Koskas di rek soññu ñi nga xam ne ñooy dugg ci biir ngir ziyaara ñu xool bu baax a baax ni nga xam ne noonu lañu ñu war a mel defar defar li nga xam ne rek moo di muuraay yi ba mu jot bu ko defee ñu mën a dugg ziyaare Seydi Aboubacar Sy ما قد قلا واو يقال لها أنت حملت بدرا سيدا لك على نبي وآلهم أجمعين ça va. waaw. mooy borom daara ji. xale yu ndaw ndaw yi sax ñu ngi ci biir raa bi ngir ziyaara Seydi Aboubacar daanaka gone yi sax a ko gën a bëgg moom Cheikh Al Khalifa dañuy rek wéyal waxtaan bi wax ak soxna si. man maa ngi tudd Oumou Ndoye Louga sëñ waaw sëñ Babacar Si rek ki nga xam ne moom lañ bëgg yal na yàlla yokk leeram te tas mi si barke mun ñu sax wax jërëjëf man jàmm gan laa jóg nga ñëw mën a wax ci ah, kaare boobu jàmm xewal yàlla wéyal li nga xam ne euh, mooy waxtaan wi ak pèlerins yi nga xam ne jugee nañ fu ne ci Sénégal ngir ziyaara Seydi Aboubacar tàng na ñu bëri ñu ngër ay ay ubbukaay waaye jar na ko Seydi Aboubacar ëpp na loolu ëpp na loolu mu mel ni ñoom ñëpp ñu ngi ci rang bi ngir dem ziyaare ki ñëkk nekk xalifa Seydil Hadji Malick Sy di Seydi Aboubacar si di euh, bàyyi ci Serigne Mansour Sy borom ji waaye itam di bàyyi ci Cheikh Ahmada Tidiane si Al Maktoum waaye nag di bàyyi ci ki nga xam ne moo ak kàddu kër gi lu toll ak juróom-benn fukkaat di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mu mel ni ñoom ñëpp daal bawoo nañu fu ne ñëw ziar si Sidi Aboubacar bi nga xam ne euh, kenn dootu ko euh, daanaka présenté kenn ndax li def ci lislaam lu def rek ci njabootu. Euh, tijaan gi yëpp ñëpp nag tey jii mbégte la ñu àndal donte buuxante bi metti na xat na ñoom ñëpp rek ñu ngi ñëw ndeysaan nekk ci rang yi ngir mën a dugg daal di ziare euh, Seydi Aboubacar euh, mu mel ni duñu fi yam dinañu dem ci yeneen itam xabru xool ñi nga xam ne rek ñoo di pèlerin yi nan la ñuy ziare ñi nga xam ne rek ñi nga xam ne ñoo fi tëdd di rek ay boromi xam-xam di ay itam sëriñ ñu daal nar a dem nag ci zawiya Sidi Hadji Malick Sy euh, mi nga xam ne moom itam euh, moo fant guddi gi nga xam ne moom la ñu nar a màggal euh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fu waay nekk rek da ngay koy bàyyi nga ñëw fii ci dëkkam bi dañuy dem wutale ca zawiya Sidi Hadji maami Sëriñ Bay Si nee na la inna ni la shakaha حفظه وربه عونه كافيه في الإيمان ولا نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ما من سيد الجميل من بعد ما قد قلا ويقال لها أنت حملك بدرا سيدا للأمم على نبي وعليم أجمعين سلاما ربنا دائما ami sidi ahmad nee na ida wadaati isami muhammad eh, ginnaaw ba ñu jugee eh, Zeywe eh, Sidi Aboubacar ñëw nañ ci bàyyam bu tedd bi di Serigne El Hadji Malick nga xam ne fi la tëdd di zawiyaam ñu ngi ci biir fii nag tëdd fi moom dong ndax ñaari doomam itam fi nañ leen denc ku ci mel ni sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh ak ki nga xam ne moo di Serigne Mansour Sy Balxawmi di bàyyu xalif général euh, bi toog di Serigne euh, Babacar Sy euh, Mansour ñu ngi fii ci biir Zawiya Seydi Hadji Malick ñi nga xam ne ñoo di taalibe nag ñoom itam ñu ngi rang ngi dugg ziyaare jëm yu tedd yooyu du ci ñàkk dañuy dox daal leen di jege bu ko defee rek ñu laaj leen li nga xam ne moo leen indi tey ci li nga xam ne moo di Zawiya bi ak ziyaara bi salaamaaleykum ñu ngi leen nuyu. Modou Seck waaw alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla bi ñu yàlla andee ñu ak fii si Tiwaawan ñëw ziyaare sunu maam Alxaaji Maalik Si radiyallaahu anhu du moom dong dañuy toppaat fil bi nuyoo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Habib Birame Diour Kaolack. Kaolack nga ñëw tey ci waaw waaw loolu rek moom moo tax a jóg de. Oh. waaw gàmm moom neex na trop macha allah waaw. yéen waa fan ngeen. ban télé la Sen TV waaw ah. xanaa kontaan rek bëgg rek billaay wallaay bëgg rek waaw jërë moo ñu ñor moom lañ ñëw bëgg ziare si quoi. kenn yàlla na yàlla nangu ziar rek. ñu bokk ñun ñëpp. mi ngi noonu ñu ngi def fil di dem di ziare eh, ki nga xam ne eh, daanaka def na liggéey bu am solo eh, ci ci Tidiane ya dañuy rek daal papa. waaw ah, maa ngi jógee Diourbel ah waaw góor waay rafet na lool rafet na affaire bi magal bi neex na bari na ay nit jërëjëf <laughs> jërëjëf mu mel ni ba tey jii rang bi nag moo nekk fii ba fële ci biir di rang wu góor yi waaye ñoom ñëpp rek dañoo bëgg a ziyaare ñu tedd ñi nga xam ne ñoo tëdd tey file di Serigne Hadji Malick Sy Serigne Mansour Sy Bal Xawmi ak Serigne Abdoul Aziz da baax mi nga xam ne nii mooy baayu Ndiol fuuta di Serigne Abdou sëriñ Mbaye si Abdou waaye itam di eh, baayu Serigne ah, Maodo mi nga xam ne eh, ci dernier bourde bi namoon nañ ko jot nañ koo gis waaye génn na def eh, waxtaan wu am solo bégal soppe yi dañuy wéyal rek li nga xam ne moo di waxtaan wi ak taalibe yi bëgg a dugg ziyaare Seydi Hadji Malick Sy yàgg naa fi ziar sant yàlla alhamdulilah saa am yëkkati bu baax a sant yàlla daw dëgg yàlla waaw fii la daw dëgg yàlla fi ñëw daal di nga gis sa bopp waaye fi ñëw moom doy kii nii waaw. sëñ bi ñu ngi lay. ñu ngi bu baax man Fadja laa jógee maam Ibrahima Thiam. xam nga guddi gi moo gën a màgg si guddi ndax yanant bi. waaye kenn du ko woote mu muy Siraj Malick si loolu rek la ñuy wax vraiment di rafetlu jataay bi di lu ñëpp si ñëw bi macha allah. bu baax ziar kay lépp la ziar lépp la parce que woote bi moom moo ko woote pour ñu am jege yoog moom pour ñu xam ku yenante bi te moom wax ñu kan mooy yenante bi kon ziar kay moom kenn waxatu ko. macha allah jërëjëf ñuy wéyal rek li nga xam ne moo di doxantu bi ci biir Seydi Hadji Malick Sy daañu waxtaan aussi ak soxna yi ñoom itam daanaka am nañ ci wàll. yaay booy yaay booy ñu ngi lay ah, leen di fay kay. nga bàyyeekoo. ah nga bàyyeekoo. Linguère Linguère. gàmm gi de neex na yàlla nañ ko teewe déwén yu bari luñ fi ñaan lu nekk yàlla na ko yàlla barkeel yàlla nañ ko fekke jàmm te ko yéen tamit yàlla na yàlla barkeel seen liggéey yàlla na yàlla guddal seen fan. may leen fanu gudd ak wér may leen mujj gu rafet ak mucc ngeen yàgg koo def sàmm leen sàmm njaboot gépp ndaama jërë ngeen jëf. bismillah yàlla waaw si àll yëpp yàlla na yàlla def jàmm yàlla nañu ko teewee di woon di woon dàqal ñu ren yàlla nañu yàlla musal saytaane musal leen ci musal mboolem jullit yàlla nañu yàlla jàpp jàpp mboolem jullit yàlla na yàlla xett xett mboolem jullit tam ko neex na baax na yàlla nañu ko teewee ay déwén déwén ci barke Muhammad mi tax a taxaw fii sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla jéggal jërëjëf waa mu ngi lay fay. waaw vraiment donc dama ñëw kontaan lool. waaw ziar naa kontaan lool maa ngi dakaar Dakar quoi mais Vélingara laa dëkk. neex na lool gis nga nit ñi ñu ngi fees del réussir na alaaji maa rek moo ko yor. ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax ñoo ngi fii si sewe Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu yal na yàlla tas ñu ci barkeem ci barke Seydina Mouhamed ñu ngi ñaanal njabootam di nuyu xalifa bi général bi Tidiane yal na yàlla yàggal ko fi yal na fan maam fun gudd bu ànd ak wér ci barke Seydina Mouhamed ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen bëggee yal nañ ko yàgg a tekki tawee daraje Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam waaw ñoo ngi fi rek euh, maa ngi sant borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi wa sallam di ko ñaanal ci euh, bis bu tedd bi nga xam ni ci la gane ci àdduna nga xam ni dañoo ñëw pour fàttali ko waaye defaale ko occasion pour ziyaare suñu mag ñu baax ñi nga xam ñoo tëdd fii ku ci mel ni El Hadj Malick euh, baax ak ñoom ñëpp waaye di sant borom bi subxanahu wa taala bu baax a baax a baax a baax a baax ci lim ñu xéewale ñu fekkewaat gàmmu ren bii. ndax euh, feete ju euh, juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yi jàpp naa ni dara gënu kaa màgg ci kaw suuf waaye nit ñi benn côté dañuy xaw a juum léeg maanaam dañuy jàpp ni gàmm bu ñu ko waxee rek euh, maanaam alaaji Malick la wala kii la dëgg la sax maanaam alaaji Malick ak nit ñi baax ñu tëdd fi loolu dañ ko war a def occasion pour bu ñëwee ñaanal leen njéggal ak yërmande waaye taasu ci seen barke ak yu mel noonu. waaye euh, li li ñu war a gën a taxaw ci bisub tey bi mooy julli ci yonente bi lu baree baree bari di ko ñaanal waaye itam di ñaanal ay saxaabaam parce que yonente bi li mu liggéey ci kaw suuf bu dul woon moom tey ñun xawuñu fu ñu jëm kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax wax ci ci liggéey i seetaan ngeen ziyaara suñu mbokk tijaan yëpp nga xam ne ñu ngi bawoo fu ne ci Sénégal ngir fekkee si gàmm ko Tiwaawoon atum ren ji nekk gàmm nag gu ñu namoon ginnaaw ak diir nag daanaka demewutoon noonu dax Covid 19 bi waaye nag jàppale ne tàmbalee nañ ko ci zawiya Seydi Si jeexalee ko ci zawiya Seydi Hadji Malick Si ndax dañu waxtaan nañ ak ñi nga xam ñu di tijaan yi am mbégte la ñu waaye dem ziyaara kilifa diine yi ñaanal leen ñaan ci seen waaye tam waajal bu baax a baax gu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam programme ni ki day ci guddi lañ ko fas yéene amal jàppale ne nag ziyaara yi day continuer ba ni ki ëllëg itam ndax gàmm gi naam tey ci guddi la waaye suba itam dina am ay taalibe yoo xam ne dañu ziyaare bërëb yu tedd yi laataa ñuy bi waat nag ci seen kër topp leen suñu ay programme lépp lu ñeel wàllum gàmm gi leen ko diktal ci set yi mami sëriñ bay si nee na waqaala la innani la shaka hafizu wa عونه كافي في الإيمان وعلى نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ما من سيد الجميل نينا من بعد ما قد قلا واو يقال لها أنت حملتي بدرا سيد